fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko. bokk yi gannaaw bu ñu sante sunu boroom julli ci yonentam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp tey baalu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boole jéggal. di fatelante ak suñu bokk julit yépp ñu gën a fab suñu tànk teg ko ci taqwa allah te di bàyyi xel bu baax a baax bis buñ dëgmal boo xam ne kenn du ko wallaay moom la alquran di wax ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allah kenn ku ci nekk ñu taajal ko ci kanamam lam am loolu yow mën a xam bu tere taxawee kenn ku ne lam yóbbu moom lañ koy peeseel bu yóbboo gerte bu yóbbee sëp bu yóbbee dugub suñu borom mi ngi wax ne it bis kuñ wërale say yëfi bopp lew na la doom léeg-léeg nit bëgg lool ñi ko yéene jàmm ñëpp bëgg waaye léeg-léeg it ñu wërale ko lam moomal boppam muy ñaan yàlla mu sorel ko ko ni diggante penkook sowu soree yalnoonu ci yàlla musal yowma tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdaran wa maa amilat min suuin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida bis booba ca la yàlla di wane jaam bi bawon ko lo xamne ne fàtte woon na ni masna ca jaar wala masna ko def misal mo moy leg leg nit génn ci ab film vidéo sol ci mbub mo xamne ne fàtte na ni amon na mbub ma sax gis ci ño xamne ne nañ bu yàgg mom lay wax ni yunabbahu al yawma idin bima qaddama wa akhar bal al insanu ala nafsihi ala nafsihi basira mu melna nak ku ñuy fàttali bis boobu ci biir weeru koor ab soññee lay tekki xam ne weer wi tuutee ci des goj boo xam ne yetti wuum la yetti wuum la am yaar ya ferenciku wala firinciku genn des fa génn ko léegi tey mu toqi toqi fekk ay moroomam ci guddi yi ak bëccëg yi kon boo képp koo ci xam ne lam nekkoon ci biir weeru koor wi fan yi weesu bañut ko ko fa fekk mu di ko def ku ko ko nettali ji ay kilifaam na xam ne yoon waa nga noonee nag gaaw ndax li ci des bareetut waaye koo ci xam ne nag def na ci benn yoon loo xam ne bëggut ko kenn ku ko jagis wala ku ko nettali ji na tegg tànkam te tuub delluwaat gannaaw fexe ba li des ci fan yi mu dab mu dab ko ci muy fan yi nga xam ne ci la ñuy dàkk di tàndale guddi googu suñu borom tudd ci alquran tudde ko laylatul qadr inna anzal inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر با سار أج سار وميت الميت تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أم نفهم في مبحنة القرآن المهم إنا أنزلناه في ليلة مباركة سخن عائشة رضي الله عنها لا يتنجل النبي صلى الله عليه وسلم نكو بس بوخ من تنور من ليلة القدر أنا لما تنجاني يعني الله ونكو ديال وخو خيرك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني yàlla yaway jéggalekat bi ku bëgg ku la jéggal jéggalu nga nga jéggal ko maa ngi lay ñaan nga jéggal ma yàlla nga ma jéggal kon fan yu néew ci des yoo xam ne kenn ku ne mën na caa daje ak laylatul qadr su fekkee guddi ku ci nekk jàpp na ni moom la di des ci weer yi moom ca lay nekk moom la ko weesu weesu na waaye li ci des moom su ko ci dàkk it am ko ci mën na mën na caa des ak bis ba yàlla nañu ci yàlla dajaleeg moom bu loolu jàllee it ñu xam ne am na leneen lu ñu ñu gàll lu ñu ñu gàll ci catul weer wi loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gàkk-gàkk yi nit ki defoon ci biiru weeru koor wi te yëgu ko ba di ko tuub su ko jooxee mën na koo setal wicc koor ga dem set wécc muy ñi naan muurum koor ñi naan muddum koor lu wér la nag lu jëlee yonent bi lu jóge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn omar ak ñeneen ñu bari ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko gàll jullit bi moo xam muy góor walla jigéen mag wala ndaw moo xam muy koo xam ne moomam boppam ak koo xam daane ci ay yoxo nu ñu koy génnee kenn ku ci nekk bu demee ca waroom xam-xam yow dëkkal dana danañ ko ko leeralal ba mu leer ko nañ mbokk yi tollutuñ jamono yoo xam dañuy dem fa suñu borom nag xaw ma woon mu doon aw lay xam yomb na lool léeg-léeg nit xam ba xam loo xam ne sax bugg ko a xam te laaju ko kenn waaye jamono moo ko nargañ xamal ko ko léeg-léeg mu neex ko léeg du ko nag du ko neex muurum koor moomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day fóot koor bam mu set wicc ya ca nekkoon ci ay mbóorant ay mbóosóor bu ko nit ki génnee waaye nag am na bu ñu ko génnee nu ñu koy def dañ koy yóbbu ca fa ñuy sotti mbalit ma waaw wala déet déedéet amna ñu koy jox ñoo xamne day fekk soxla nañ ko lool ba bu agge ci bis ba nga xamantene ñëpp dañuy génn ci pénc ma di sant suñu borom su mo it mu mëna a sant suñu borom ñëpp ñi ñu koy jox moy ñi jox azaka innama sadaqatu lil fuqaraa wal masakini wal aamilina alayha ba mu àgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xam ne joxe na ko laata muy dem ci jullikaay ba di julli ci defe na ko nañ ko ko sante woon su négee ba ñëw nag door koo joxe def na lu baax waaye wuute nag nañ ko ko digale woon dangay ngay dégg ci jullikaay yi ñu naan bu leen fàtte muuri yi te fekk joxe muuri koor weesoo weesoo gun na daanaka saxaaba yi ñi ci ëpp nee nañ daawuñ nag sax bañ bay dem ci jullikaay bu joxe ko waaye bu ñu ne koor gi des na ñaari fan wala ñetti fan te lañ koy tàmbalee jox ñañ ko war a jox su ko defee ñu mën a waaj ñi ñëpp suñ jógee ca joxe muurum koor it la nga xam ne mooy mandargaal njeextal koor gi mooy julli ci korite yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def balaa génn di julli ci korite jëfandikoo ay doomi tàndarma aw yaramam ci saayir yëg ne tey du bisub koor mu sox a julli ci bu kenn wut ak njàmbaar di ñeme ko ñeme ñemelu koor xëy na ngëm mu dem julli ji ba ñëw door a dog su ko defee def na luñ ko digalul lañ ko digal mooy balaa xëy dem di julli ji mu dog mu xëy lekk suba gi bañ xam ne ba biiram bi ak yaramam bi xam ne tey jii du bisub koor bi du bis doonatu bokkatu ci koor bi أنس بن مالك نانا رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه نانا ينتبي صلى الله عليه وسلم مستخي جلجي كوريتي تدو دفا سخ أي تندرما بن مدون أب تندرما ولا نياتي دوم ولا جرومي دوم lu tóol lu tóol mooy loo xam ne nii boo ko séddalee ñaar dana des benn juróom boo ko séddalee ñaari nit bu ñu amee ñaar ba noppi benn bi waaye it ndokkeelante gi ñu def ci biir bisu bis bi it am na nam jàngale euh, Jubayr ibnu Nufayr nee na saxaabatu rasul radiallahu anhum daanañ def buñ tasee ci bisub iid kore gi mu gën a jege daanañ waxante daal lu baree bari taqabbalallahu minna wa mink baarakallahu lana wa lak yal na ma yàlla yal na la yàlla nangul te nangul la yal na yàlla barkeelal la te barkeelal ma lu barkeel nag bu dee lu néew léegi tey mu bari su dee lu bari mën na faa yàgg kon book ñi ngi ñaan suñu boroom fan yi nga xam ne jàll na yàlla nuñ ca wuutu luñ ca waroon a def def ko xam na nam koy def moo ne woon lu ci nekk am nag payam guñ fixé ba mu des koor man jaa bil xasanati fa lahu am amthaliha mooy dañ ko fixé mooy ku yéene benn bu baax te jëf ko dañ ko cay tegal juróom-ñeent muy fukk bu ko yéene te jëfu ko ñu fay ko benn waaye nag nee na koor moom moo ko moom te moo koy fay asiyaamu lii wa ana ajzi be koor maa ko moom ji wax moom suñu boroom nag day wane tolluwaayu koor ndax moom moom lépp waaye bu ki tax koor ne moo ko moom boole ko ci lim moom koor du ko du gone gu ndaw du gone kenn kon yàlla nañu ca wuutu lañ ca def ci ay rëcc rëcc yàlla nañu ko raxasal ba mu wicc mu dencal ñu ko fu yàq yëggul ñetti fukk yim doon nga xam ne ku ci wut njëgalu suñu boroom mën na ko ko defal yàlla ñu ko ci defal yi ci des euh, <coughs> muy gore ci sawara ba faw gore ci sawara mooy sawara du la gis doo ko gis yàlla ñu ko ci yàlla defal te gën a lu ci des ci guddi yi bu baax a baax a baax a baax a baax te ñu ñaax ñi nga xam ne ñoo gën a doon ay ndaw ñu moytu sonn lool ci koor gi seen kem kàttan bisub koriga ñu añ dem raxasoo ji foo xam ne fii fu yàlla tere la tam nañ fa woote naan ku añ na nga raxasoo si barab sàngam way way ku añ na dem raxasoo ca jàkka jullit subaar delluwaat ndokkeel mbokki julitam jokk mbokk gi seete ñam war a seeti bu tusuba takk mu julli bu timis jotee mu kii te bu tëdd jotee mu reer di bu xëyee liggéey te baña dem di reesal añub kori gi ci bi tank bu ben bi dal ben bi jóg ben bi dal kese di fa jaxaso ak ño xane ne ko mu jaxaso fa kum fu wurtu fa di fa xol lu wurtu xol di fa lal lu wurtu lal lolou nak day melne ne tabax ab néeg ba mel na nga bëgg nga jox ponkal martu ak brin mu tàmbalee toj yal nañu ci yàlla musal junj nañu ba tàyyi ne lu ci dem dem na rikk la dem nañ téye suñu làmmiñ téye suñuy gët bañ koo xool te tiit lool def ni ñu jëkk ña euh, soxna Aysa laaj laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa aaya boobu suñu borom di wax ne wallazina yu'tuuna maa aataw yu'tuuna maa aataw wa qulubuhum wajilatun انهم الى ربهم راجعون لوكو ورال نيوم ديف نان لي ورا ديف تي نان كو ماني نين ني ياغ نان كو ديف با ديف كو نان كو ورا ديف توفتال تي اي جوي لوكو ورال يونت بي صلى الله عليه وسلم نيل نيكو لاكو ورال موي ديف نان كو نان كو مانا ديف تي نين ني كوي سوكو تامبلي ني كو ياغ ديف ديف كو نان كو ورا ديف وايا لا moy xamuñu ba xam danañ ko fekke watam de xamuñu ba xam yàlla nangu ko koom déet te du delu ci wat kon bok rik bu ko kenn reese la ji fenn fi yàlla ñu yàlla defal deg ak top te mu museenu seytaane ki bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa lisa'il saa'iril muslimina amin atliku lu bokk ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bisbiku fi yàlla ande kenn ku dib julit mënu ko bañ yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetloo guma ko